dañu fi daje balaa yastaqdimuun bu waxtu wi jotee lu ci yokk waxul simili waxul heure waaye saa la wax muy lu gàtt gàtt ci unité de temps kon lu mu doon ñàkk la bu amee nag lañ koy compenser mooy muñ ak ñaan ndax amul leneen luñ ci mën muñ ñun ñi fi des ak ñaan pour ki fi jóge ma ñëw nag teewal fii son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nga xam ne li ñu tombalee di gëstu lu jëm ci premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne daanaka mu ñu fekk ñu nekk Mohamed Boun Abdallah Dionne daanaka mu ngi fekk ñu nekk en pleine campagne électorale ñu njëkkee dégg ay rumeur ci santeem ñoo bokkoon benn oto bu ñu nekk mu ne ma lan lañ ci xam na ne ko ah man de maa ngi jox ko frère am sëñ Cheikh mun naa ko woo laaj ko ñoo ko laaj ko mu dalal suñu xel ñu continuer campagne ba keroog dernier jour campagne bi ñuy mu am ay rumeur yu doon wax lu jëm ci moom ci fi ñu nekkoon maag moom mu ne ma est-ce que dégg nga rumeur ma dafa xaaral ma woo seen Cheikh mu ne ma ah yaram bi xaw na sutante moo tax sax gisu leen ko ñaari fan yi ci campagne waaye li ci wax amu ci kon yàgg na li téwoo lu jëm ci premier ministre ba keroog bi yàlla def li muy muy àjjuma bi wees ñoo nekkoon di yeggali attelage gouvernemental bi waroon ko annoncé à 16 heures ci lañ ko yégal mu ne ma ndax lii ñu wax dëgg la ma ne ko xaaral moo seen Cheikh ba xam ci laa jot seen Cheikh mu confirmé nouvelle bi waaye bi mu ko yégee ñu ko confirmé ci saa si la woon secrétaire général de la présidence taxawaay institution ne ko lépp li ci war dangeen jël matuwaay ba mu mat sëkk. kon président Bassirou Diomaye Faye jàpp nañ ni am na lu mu waroon def te def na ko dama ne nag lu mu waroon def la du faveur ndax jëmm ci fi jógee taxawaay bi mu amoon ci réew mi ak li mu jëriñ ci réew mi. Le Premier ministre Mohamed Dionne a été très grand de ce pays. li ci gën a tuuti mooy nekk na premier ministre pendant cinq ans ñëpp xam charge boobu lu mu diisee te mu nekk ko ci anam boo xam ne anam bu rafet la doon nañu premier ministre waaye doon nañu acteur politique ba ci mujjantal gi li nga xam ne képp kuy acteur politique te yàlla may la tuuti ci réew mi war ngaa mën am ambition boobu mu bokkoon ko ñëpp mooy nekk na candidat bokkoon ci wax ñu waroon na mën a jiite réew bi fi ñu toll kon suñu defee li ñu def dañ ko war a def ci nekkinum ak politique bi tam adversité amoon na ndax bokkuñu woon fu ñu waaye mosuma dégg wala ma gis premier ministre bi mu am ci kàddu wala ci jëf loo xam ne luy dépasser le cadre adversité politique wala débat ji kon yoon la tey la république rendre ko hommage un euh, dernier hommage yoon la waa république taxawu jaale ko jaale ko soxnaam jaale ko belle famille am jaale ko ñu mu bokkal deret ñaanal ko ndax ñun loolu la ñu am dernier acte bi wane yitte bi ci président Bassirou Diomaye amoon mooy man mi démb waroon dem jullee ji Ziguinchor waaye président daf ma woo ma ñëw mu ne ma dama bëgg nga dem fekki levée du corps parce que pour ma fa yebal ay ministres nga seet dama bëgg yow mi di premier ministre nga dem teewal teewal ma fa parce que premier ministre la kon ñu ngi koy ñaanal moom di fi jóge yal ko yàlla yërëm jéggal yàlla xaare ko àjjana yàlla boole ko ci borom këru barzak yu yaatu yi ubbil ko ay palanteeram mu jàkkarloo kër àjjanaam li ñu fi bàyyi yàlla na sarax bi yàgg ci lool dañu leen ko fay asalaamaaleykum